jërë ngeen jëf mbokki Sénégal mbokki bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakato yéen ñi koy suivre lamb ak réalité lamb te di ko suivre ci télévision bu mag bi nga xam ne moo di Bawal TV lundi le 25 avril ci atum 2022 ñu xëy ñëw ak yéen ci journal sunu lamb fekk di may affiche solo Mangoone Diouf coach sécurité Sénégambia la mu xam ne moom moo di franc favori devant ki nga xam ne nii moom moo di soq day moo xam ne lu ni mel waaye carne rose di nga xam ne moom la réglé jël ni ki démbu day nga xam ne nii moo di ca journaliste na bu xëy fesal lu ni mel ba tax na moom rëg-rëg moomee sànniwul kalpem de avance yi mu doon jot ci gaa yeek yëpp day xam nañu fa mu ko dugal ma ngi ko yóbbu foofee nga xam ne nii moom moo di ca Dubaay ci jongo ba ju taaru lool def li nga xam ne moom moo di xaalis sa moom rëg-rëg de waaye ba tey journaliste bu xëy di la xam ne moom moo di wax na de nee na Siteu na journaliste na bu ni mel waaye ki nga xam ne moom moo di Tapha Tine tey dévoluer son plus gros cassé la xam ne moom ci diggante ba kee xam ne nii moom moo di Balla Gaye de ba tax na moom a bëgg naa bëri kee xam ne nii moom moo di Eumeu Sène waaye diggante mag Lac de Guiers 2 day soxlawul combat bu ni mel moom Bombardier moomee ñimewu ko ñimewu ko ci li nga xam ne nii moom moo di lamb ñimewu ko ci li nga xam ne di MMA waaye ba tax ci beneen affiche xam ne di carrière ak kee xam ne nii moom moo di góor gi Tidiane ka a laale ci atum 2022 le 22 mai rek day la ñuy jeunes yi waaye combat bi nga xam ne nii waaye ki xam ne nii moo di tonnerre journalu xam le ne day li nga xam ne nii moom moo di ñaari victoire waaye troisième défaite xam ne nii moom moo di naaru sogaas mbaa du di xam ne moom moo di ay moom moo di rëg-rëg day alxayri jub ci seen diggante na ci suñ xam tay ñu xamal ne moom Modou Anta Modou Anta moomee ba tey journalu sunu lamb xëy et la date de 19 juin ci atum 2022 drapeau chef de l'état 2022 retour dans la compétition open journalu sundaram bu xëy jàll ci ki nga ne nii moom moo di Paul bu daara ki nga ne nii moom moo di xeeru ngor numéro 2 le 5 juin ci atum 2022 journal bi xëy jàmbat lu ni mel waaye la grosse la mu xam le moom moo di le défi de la mobilisation waaye ki nga ne nii moom moo di Abdou Gueye ama ngay félicité bu baax a baax ne nii moom moo di bu nii moom moo di ne nii ñoom général bu Malika ordinateur libidor ak ki ni moom moo di gànje faama journal journal ba xëy di ni mel xam ne ne day na li nga xam ne ni moom moo di ay bu malul bële day boo mu jeewul sax mu def li nga xam ni moom moo di quitté dem defi li nga xam ni moom moo di immigration waaye ba tey doomu dango ci nga ni moom moo di Jordan nga xam ne moom moo di Jordan moo di man kenn ñi meew ma nga yow jël li nga ni moom moo di sama awaas waaye ki nga xam ne ni moom moo di Jordan la koy tontu moom moo di day maa man te dama bala 15 loolu yàggatul yéen ñi koy seetaan lamb actualité te di ko suivre ci télévision bu mag bi ne moo di Baol TV du kenn bu ma topp waaye ko jooy dëpp la ko dale Thiès xombal bambay altu ndangal maak sew kabaak laañaar kër daama kër sae jàll ndulak fataar kër ibra yaasin sambe ngewel sambekool dala ba daaru xafoor siyaare sëriñ ba dellu si waat kajoor ak bawal siin saalum fuuta ak jëlëb ñëpp actualité ak Baol TV ngeen do jàmm kooru jàmm